xam nga waalo waalo yëpp maa ngi leen di ziar di nuyu 100 pour cent waalo bi di bëggee ñëpp di ziar ñëpp di nuyu tamit waaye ko li de Balla fi nga xam ne fii nga ñu fekk xam nga ku mel ni kërsu Lamiñ at mbës at Père Mbaye Samb at Abdou Tall di bëggee waaye école bi yëpp daal ñu fekk la école li Balla Gaye nga toog entraîneur par ñoo toog mbër bu mel toll ni yow ak mbër bu mel ni yow def lu ne si làmb toog si ay victoire yu bëri booba léegi fu combat yi toll waaw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 di ngeen dégg ñun ñu am na combat. Mhm. waaw. dama dégg nga ne combat yi ñu lay wax arrangé wu la arrangé wu na maanaam baaraam dañ la wax loo xam ne gënalu la daal. waaw dañ wax loo xam ne gënalu ma te soon am lu dàq loolu. Mhm. waaw. kon kan lañ la wax kon kan lañ lay proposé topp di proposé. waaw dégg naa fa ne benn mbër génn si bi. Mhm. naan dama xaar daaw dama ko tàppet. kan la kan la kan la. mooy Talfa. ah dafa génn si dina kaa daw. waaw man. ba ma nekkee xale ba ni ma nekkee mag musuma daw. te jom naa daw.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 ñi may promoteur yi may seetaan ñoo may seeraan. Mhm. benn promoteur. Mhm. su ma man yàqu du yàqu làmb du yàqu si man. non sa diggante ak Talfa promoteur mu sas la woo wala mu sas la dama la promoteur woo na ma mais yàquwul si man deseewul tamit si man. si kan la yàqoo. Ah? si kan la yàqoo. ah moom mi génn di wax. ah da nga jàpp ne si Talfa comment bi yàqoo. ah ndax tey bu bu bëggee bëree yuus génn di wax. Mhm. Mor ni la fa demoon Mor Kankañ. Mm. daanu bëri toon man dootul bëri si làmb yaakaar ni. benn waaw kay mais bu ma ko jàppee ma ko duma dama daan ma yëg gaay kenn kon nga jàpp ne yow booy yi wax ay booy lañ say morom lañ da nga leen njëkk a bëre moo tax doo seen yëgu gaay a duma da loolu moo ci am talva mhm. ki mu nekkaloon bañ ko ba mu amee problème ki mu nekkaloon biir kii bi tee bi mhm. kooku suma gaañan la sama lépp la te sama morom la mhm. moom na bàyyi wax ji na bàyyi wax ji ok da jàpp ne yow talva wax rek moo leen boole laamu boole wala moo tax day wër di wax rek Talfa la dafa def ba mu war a bëree moom. di jaayam sax maa ngi raw si a la fi def ah am na six victoire. waaye la mooy six victoire man ma dépasse six victoire nga am six victoire man maa ngi si dix-neuf victoire nga am six victoire loolu ay ree la ma def. dëgg la waaw victoire amee naa ko nu ne. Mhm. gis nañ ne tamit ak Talfa daa mel ni combat bi amateur lañ ko bëgg daa mel ni gars yi bëgg ndax tey gis nañ eh, Youssou Ndour Talfa keroog arène nationale dëkkante dëkkan métti ba policiers yi dox seen diggante. waaw ah, mooy li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 ma ñëw bëgg dugg si baaj bi gars yi bëmax ma may ko mu dugg loolu man moo ma métti. ah da ngaa jàppal Valdo en. ok ah, dama ko jàppal en. kooku su ma la bëree dama koy duma dama koy daan. te en mu ngi ko jàppal foo ko bëgg a fayoo. xaalis nekkul si làmb ji la may mbër. si mhm. làmb ji kay koy fayoo moom soo ko waxee dina ko fàttaliku ma par baaj ba tu set bu weex la soloon ñëw nekk top 5. Mhm. waaw.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 waaw mais tam ba ma demee ba xam si carrément li wéyul damaa taxaw samp lu samay morom am dama koy am si làmb. dégguma la de. dama la lu samay morom am dama am si làmb. kon da nga jàpp yow xam nga ne da nga doon caaxaanee làmb. non maa mën maa bu doole daan ànd ay xale affaire jeunesse jàpp ma mais léegi magum jëmu laa noonu la fa demee rek. kon léegi bàyyi yónni ma yàqam ci ma rek at yaay. kon léegi expérience bi yokku na doole ji yokku na.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 daan sa doom dekkoon war nga ko fournir. déggalu ma la buñ ma buñ ma làmb boolee suba suba suba leen léegi-léegi jox ma avance mhm. ma jël yóbbu ngeewal. Mhm. Mhm. mbër nga yaa ngi bëgg a yàgg si làmb tolluwaay làmb làmb mi ngi dox wala mi ngi am tànk tànk ginnaaw làmb si sa gis-gis yow. waaw làmb moo ngi dox kay ndax booy ñu mujjee ñëw ñëw fay wax ay millions kon kay a ngi dox mm. waaw. yow ngi dox na ñu mujjee ñëw ñu ngi fay ko ay millions. waaw. yow ba muy dem ba muy gaañu at la bàyyi kër ga. mais nii nii man kuule naa ko noonu la fa demee rek. nii nii kuule nga gàlle yàgg na. lu si des. ah lu si des. peinture ak karo. <laughs> avance kan nga koy peinturer. <laughs> ñëw rek ma peinture karo. non non waxuma laay avance ku ñëw de da ngay taxaw fi nga samp tànk yi nga wax. non dama la avance ku ñëw ma peinture karo. avance ku ñëw ma peinture karo du wax. avance Talfa la wala Valdo wala kan la. la ku ñëw rek du ma wax benn mbër ku ñëw ma peinture karo. ku ñëw nga peinture karo. waaw ndax peinture karo moo la ma dese.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 waaw ñooñu ñaanal tamit suñu frère suñu doom yaay suñu cheikh mi sama lépp ñu fils de Balla ndax ku ko xam ku ne xam na si ko man moom bis doxul suñu diggante làmb tamit doxatul suñu diggante sama gain la sama xarit la sama lépp la di ñaanal la 14 bii ñu jëm yàlla na ko yàlla suturaal may ko ndam sama rakk yi xam ñoo nekk fi muy caat Daawda Fall ñoom Lajoor ak Zal Kona mi xam ne bërki dem la bëre ñu joxaat ko victoire bi xam di ko félicité bu baax a baax. jaw de barki dem la daan Rambo. école yi da Balla Gaye ñëpp Ablaye Lo Karim. ku fi amagul combat sama xarit sama doom na mi Samba Laobé tamit day bëri la 14 yàlla na ko yàlla may ndam école yi da Balla Gaye daal instant yii nii daal baax. instant ngi baax. li ñuy taxaw sa combat sa doomu nday sa doomu nday wala wàcc la 14 diggante moo gën a rose gaa yëpp na Fils de Balla mi ngi doog am combat. waaw Fils de Balla yaa ngi am combat ndax ku jugee si général Malika. jugee si Goro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 waaw ah. kon nga jàpp ni combat bi combat xale la te incha allah si kattanu yàlla bu suuflee. Hmm. la indi. lu ragloo daan indi moom la indi. moom la indi day tifaar. waaw muy je attaque je cogne je gagne. kon nga jàpp ni combat bi di combat bu ñuy may ragloo dara da ngeen war a attaqué da war a cogne da ngeen war a gagne. loolu moo am làmb ji. fii dabar amul leen lu muy calcul liggéey na lu mu war a liggéey entraînement a entraînement kon lan lay xalaat. moo ma jaaxal. leen lu muy xalaat ñëw jël moom yàlla suturaal ñu may ñu ndam. incha allah. nga ne jël li ngeen moom yàlla suturaal la may na ndam. Kandji production borom ETDR Média ku xam ne moom promoteur bu mag la mu ñëwaat si làmb noonu nga gisee dugub si waatam si làmb. yàlla rek Kandji mm-hmm. mais avant mi ñu dugg si làmb suñu lépp moo ko yor moo ñuy jàppale. Mm-hmm. moo ñu defaral lépp. Mm-hmm. lépp lu ñu dugg suba jën saw da da yëg. lu ñu bëgg dugg tam da yëg. muy père Kandji man nu mu ko wax sax Kandji papa laa koy wax. xam nga li wax dugg seen biir mu ñëw si làmb ji ñun dañ see feer. ndax ñun loolu lañ bëgg ndax ki doxal làmb lañ bëgg ndax mooy suñu métier moom tey bu ñaatee diñu dooleel diñu jàppale dañ koy ziyaare bu baax a baax di ko ñaan laat jàmm bu wér waaw at ay famem muy Tafa Kanji ak Xaadim ñëpp maa leen bëgg bu baax a baax waaw journée mu tëgg nii loo siy wax diggante ñax jariñu ak caatu euh, caatu yoof ku da xam ne caatu yoof yi ñaar laa la ngeen ñax jëm sol laa la noo gisee combat boobu moom waaw mooy combat boobu combat la mhm. ba sama tabax bi rek lépp moo ko sa tabax bii nga doon tabax. lépp moo ko def maa ngi koy bëgg bu baax lépp. am yoo xam ne sax daan ma bu ko mais ma moom moom. ku sant nit doo sant noonu la fa demee nag mais maa ngi koy nuyuwaat bu baax. Mhm. comme caatu yoo fa ñaq. Mhm. yoo xam làmb la rek ku nekk mën na daan sa morom. Mhm. sa xel amul ko dem si boobu hmm? noonu. foofu am na koo xam ne am na ma revanche am na koo xam ne bëree guñu. ñu ah. ñaq waaw. sa xel si ñaq jaruñu. ñaq caat na trop maa ngi combat kay gis man daal mooy noonu lu mu daan bëgg naa. dama la kanji moom moo may seetaan. Hmm. sama kombaa bi taxaw est-ce que du jógee si moom sax incha allah. da nga sa combat taxaw. est-ce que du jógee sama papa kanji. mais moom mais promoteur yëpp. Hmm. ubbil naa leen mais est sama combat bi taxaw. Hmm. papa kanji du ko tëgg. si yaakaar naa ma seeti kanji na ko tëggal ma Youssou Ndour ak Baldo. ba tey na nekk moom lu mu wax rek dama koy def. deuxième journée bi Youssou Ndour Valdo moom lu mu bëgg rek dama koy def. Hmm. moom lu mu bëgg. dama koy def bu la woowoon nii nii ne yu sa diggante ak moom laa la lu mu ma wax. Hmm. dama koy def jeexal nay waxee. lu mu ma wax man man du ma saq jëf. man nit laa. Hmm. tamit nit du ma du defal lu baax ma koy fay lu bon. mu xalaatu ma ko. man loo ma jàppee noonu laa la jàppee. non eh, eh, booy ànd diw loolu yéen ñaar la mais man nu may ànd ak yow man loolu laay lijjanti. maanaam nit moo lay ji tant que topp ko. ok te moom dafa ma ko ji dafa ma ko man du ma dem fenn naan la nii woon nii nii ndax dama am loo xam ne dama ko mais moom nit lu mu la def rek na ma la dafa tax mais maa ngi koy nuyuwaat bu baax moom moo waxee damay def waaw. ana seen patron nañ ko gis mu ñëw fii di contact di entraîner ana Balla Gaye. waaw xëy na mu ngi si ruqam di liggéey rek. waaw mm. ah, mooy si ruqam di liggéey. dañ dañoo gis da ngeen doon ànd di di ànd ensemble di entraînement ma laaj daal Balla Gaye nga ne xëy na mu ngi si ruqam di liggéey. waaw boo déggee mën la xëy na xëy na lu mu ëmb dafa bari. dëgg la dama bëgg mu leer quoi xam nga man samay nopp baaxul. Balla Gaye mu ngi si ruqam di liggéey. waaw mm-hmm. ah, comme que loolu nga bëgg dégg. Mm-hmm. mu ngi si ruqam di liggéey. c'est que ñoon gis ay vidéo mi ànd yéen ñëpp ensemble école ligue bi di ànd di entraîné gisatuñ loolu ñu ñëw école ligue bi wéet loolu la ma la la. mais loolu bi par combat la bu pare combat lay ñëw ñu ñëpp ñu ànd ak moom. Mhm. dem entraînement. waaw mais tamit instant nii. Mhm. day nekk si ay business am ñun tamit ñoo ngi si école bi. Mhm. mën naa am bañ am temps mais moom moo ngi entraîné moom. mi ngi entraîné waaw. ëllëgoo Balla si làmb. waaw loolu mu ñëwaat rek ñëwaat entraîné. def jël ay moroom daan leen. jël lu moom. noonu la fa demee. ñoo dégg coow yu bari diggante Balla Gaye Siteu Balla Gaye Tapha Tine Balla Gaye Modou Lo yow sa man daal ku si bëgg. bëree moom. ñun pare nañ pour jàpp la ko. c'est simple pare rek pare ngeen. nañ kay ndax mooy suñu VIP bi mooy suñu patron. Siteu nee na moom nañ ko fay lu muy laaj mu jël Balla. waaw ba tey ba tey mën na nekk Siteu da bëgg-bëggam la wax rek. Mhm. waaw. Ah. mais ñun suñu sañoon saa kees. la mm. ñuy xaar Mor mooy xaar. may saa mais mais mais yu saa kees daa am combat diggante moom Eumeu la dama la bu ñu sañoon saa kees. Mor mhm. mooy xaar. Mm. saa kees bëri la cinq. ñëw bëreet Modou Lo. ah da ngaa yow la 5 Sa mooy daan. non Sa Thiès loolu bit la fanaan incha allahu rabbi. Hmm. waaw. di ko ñaanal ndam bu baax a baax. seen mooy buuru géejawaay de képp kuy VIP bi jàpp na fu mu jaar ak yow. seen ki ko njëkk a daan géejawaay la nekk. ku ko njëkk a daan. géejawaay bii la dëkkoon fa la yeewoo muy Mafal Seye. moom boo ko waxee moom xam na ko bu baax ki nga njëkk a daan aller retour. Mm-hmm. dafa daan mbapat yóbbuwaat ko daan ko. Mm-hmm. arène. mais seen patron moom moo ko teree tamit. dama la suñu mag laa moo ko sa mag moo ko daan aller retour. waaw kay mais fu mu toll moom moo ngi daan arène fekk daan ko bapat mais yow nga boo taxawee fii na Sa Thiès naka Lo xaar kon c'est-à-dire Sa Thiès day loolu bit la fanaan loolu ku yéex doo gis jël bi. nga ne loolu waay. barke sëñ Bamba ku yéex doo gi jël bi kon nga jàpp ni Sa Thiès bu at bu suuflee Eumeu Sène at bu suuflee moo ko bàyyi yàgg na moo ko bàyyi kay incha allah rabbi di ñaan yàlla yóbbu ñu sa rek ñaam ndam bu sedd tey booy xool euh, san toon bi mbëri mag yi combat tas na Youssou ku la xam ne yow amateur nga sax dimanche saa ngi làmb ba tasal affaire yi gars yi joxal ma ku nekk ku nekk kenn combat su ma jox ku nekk combat dañ naan damaa far déedéet def sa soirée rek ku nekk ak sa soirée comme kan am nga VIP yi. Siteu ah. amagul combat. Ah. Lac de Guiers amagul combat. Ah. Balla Gaye amagul combat. Modou Lo amagul combat. Tapha Tine amagul combat. ah. Boy Niang amagul combat foofu tasal ma foofu rek gars yi. waaw léegi Siteu Boy Niang. Siteu Boy Niang. waaw ak kan. ah kan ak kan. Lac de Guiers dem jëli Reug Reug. Lac de Guiers Reug Reug. waaw ak kan. Balla Gaye Tapha Tine. Balla Gaye Tapha Tine. waaw. Modou Lo toog xaar. Modou Lo toog xaar. yow professionnel nga. <laughs> non du ma pro sax. loolu laa gis rek. da nga jàpp ni moo war a pose ñiy bëre seen biir ba mu tas ba pare. waaw comme que moom moo yor affaire bi kay. na dallu comme que ñaari booy la teg la bëre ñoom kay. Ah. instant yii nii na toog xaar xoolaat beneen grand frère bu génn def comme lu mu def rek mu jël la noonu la fa demee. noonu la demee Youssou Ndour ba amoon lay tàggatoo la lay doon. waaw du waat ñëpp du nuyu bëggee ñëpp ñu may jàppale. Mhm. ku si mel ni Fara Ndaw. Mhm. Modou Gueye xam nga. Mhm. Pape Mama Fall. An Ndaw Kéba Kanté. sama bàjjen Anta Der Ibou Dieng. Mbaye Fall jàmbaar président jàmbaar.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 kii yi ñëpp maa leen bëggee mhm. waaw. ak sa doomu nday. sama doomu nday waaw kii mooy sama gàllaaj moom. waaw waaw kii sa bëgg sa sa doomu nday sa xarit. moom mooy xëpp gàllaaj kay. tuddee ko doom mu tuddee la doom. waaw loolu moo am. waaw loolu loolu moo am. technicien bu mag bi. Samba laa bëgg jaxaseel ma tuuti. waaw lu tax loolu. la tax loolu. non dañoo bëgg. waaw gars yi amateurs yi nee nañ. est-ce que mën nañ xaar mën nañ xaar indi Fils sa Balla na Gris boo nee na moom mooy indi. Lac Rose. Balla Gaye mooy nuyu fils de Balla force ndax rak xam la. Gris Bordeaux bu ko indee gën a nooy ndax am na fu mu jaar a bu ko mooy gën a nooy mooy raw sips. baal loolu waay. loolu mooy mooy raw sips nga bàyyi loolu. Ah. waaw. di béggaat ñëpp di nuyu Sambalaw bi yàlla ko yàlla may ndam. fils de Balla yàlla ko yàlla may ndam. Thiat Daara Fall yàlla ko yàlla may combat ca ca la munaa bi. Hmm. di nga ñaanal ndam bu sedd guy. waaw Lajoor sama fils sama lépp. maa ngi koy bégee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 Idi papa Idi. sëñ Cheikh papa sëñ Cheikh bu Tiwaawan. waaw ah. Mhm. ak papa Ibrahima ak papa Adalaay. ñooñu laay nuyu bu baax. Mhm. di leen ziar di leen bëgg ak sëñ Xaadim. Mhm. waaw di bëgg waat ñëpp ñaar ñëpp am jàmm. noonu la demee waaw. jërë ngeen jëf ah Youssou nu lañ fi amoon si école di Balla Gaye kon lu ñu koy waxee rek dañuy toppal fépp information nekk ñu ne jëlee leen ko ah jërë ngeen jëf yaa ñuy seeraan si yëpp jërë ngeen jëf.